yow yaay chef de centre euh, lycée Recas bu Kër Massar ñu signalé ñu ko ne dafa am ay personnes yoo xam ne ñu waroon ñëw voté si ñu ne mënuñu leen voté cas bi naka la demee. voilà boo xoolee loolu dëgg la am na fi maa ngi dégg sax si yenn wax yi ñuy wax ne mot na 2000 waaye man li ma fi gis ci ñi nga xam ne si situation boobu lañ toll. Euh, yagul 1000 man dégguma 1000 dégguma gisuma 2000 gisuma 1000 gisuma c'est quelques cas yo xam ne nañ fi luy sen problème moy dañu dugg ci bureau de vote bi biñ duggé sen tour mu ngi fa toutes les informations les concernant mu ngi fa mais le seul problème moy carte d'identité biñ yor nekkut lieu de vote bi mo ci nek alors que carte d'identité biñ wara indi dañ ci wara gis comme lieu de vote lii c'est zone de recasement bu Kër Massar ñoom nag pièce biñ indi moy bu ancienne bi donc cela veut dire quoi que nous avons une pièce pour nous mais nous ko ñenn c'est vrai parce que nous fi voyagé il n'était pas au courant il mu ñu lieu de vote dafa changé pas fait ñëwee ñu ne ko mais pièce d'identité bi yoruloo ko am na ñoo SMS Il envoyé que changé nañ lieu de vote waroon nañ jëli seen pièce d'identité mais jëluñ ko ñenn ñi ñu ne xamuñ woon dañ ko war a jëli ñenn ñi ñu ne ñoom xam nañ ko mais dañoo jàpp ne c'est faux am na ñenn ñoo xam ne parce que préfet def na liggéey bu mucc ayib ndax délégué na benn commission mu def le tour des quartiers dem ci chef de quartier yi dem ci maison de la femme ñëw fii ci lycée zone de recasement amoon nañ fi benn site fii chaque matin ñoom dañ doon xëy nekk fi ba 18h di distribuer ay cartes ñenn ñi retiré nañ mais am na ñu retiré wul doon def visite de proximité tam dugg nañ ci kër yi. won len ne su fekke ne lieu de vote bi changer na da nga wara dem ñu jox la sa carte d'identité amna sax commission yo xamne ñu ngi yoro won carte d'identité électeur yi ne len sen carte d'identité ñu ngi fi na ngeen ñew jël ci ko ñom ñu ne duñ ko jël parce que jappu ne li lu sérieux la dañu japp ne c'est fictif que dañ leen bëgg nax ñen ñi sax dem nañ ba jox len sen carte ne len sen carte ngi ni da ngeen di joxe beul pour ñu jox len ko ñu ne ñom duñ joxe ancienne bi ñe tamit demat ak sen carte commission bi démb fi ci lycée zone ñu ngi fi ba ay heures di distribuer ay cartes donc ce qui veut dire que euh, ñenn ñi c'est un malentendu d'autres ils sont informés mais ils ne voulaient pas considérer cette information comme avérée d'autres aussi ils nañ jox nañ leen seen carte ñu ne ñom du joxe seen originalu carte donc lool mo nek problème bi fi ci lycée zone de recasement bu Kër Massar bon légui rek woo Mme euh, madame madame Sall ak euh, madame Touré ñu nekk sous-préfecture de mais sur instruction du sous-préfet ñooñu pour le moment moom amul instruction bu ci voter parce que ci carte d'identité bi ñu yor li unité 11 voter unité 11 lycée zone la invité euh, voter ce dire que pièce d'identité bi zone moo ci bi nga bi am duplicata commission bi nee carte waaw tey duñ distribuer carte donc ce que veut dire que ñooñu bon sauf mesure bu jógee koo ci kaw mais je pense pas que dinañ mun a voter waaw. Euh, am na information bu ñu jot si bi ci aussi pour ñu voté wul ñoom ne nañ que waa APR ñu indi seen ay nit ñuy voté si. loolu ku ko wax c'est foo parce que tey am na fi koo xam ne sax ñëw na muy chef de quartier bi nekk fii unité 10 moom mu ngi àndoon ak ay militants am ñoo xam ne moom seen i carte yore woon na ko mais bi commission bi di dem daf leen ko delloo. parce que wër na leen woo mais ñoom ñoo yéex a ñëw bi ñu fi ñëwee le matin moom won na ma carrément ñoom moom la ñu àndal te moom parti bee la bokk mais ñooñu ñibbi nañ te voté wuñ parce que en tout cas ñun luñ fi nekkal moy dëgg fété wuñ fenn parce que nous représentons l'État donc nous ne devons pas dem parti bee wala parti on reconnaît même pas les partis ñun luñu reconnaissons reconnaître moy sous-préfet mo ñu jox ay instructions mom les suivre à la lettre que qui le la ou wala fait le bok ça importe peu pour nous waaw alors responsabilité c'est quand la vie finalement. la responsabilité bon état à fait ce parce que créer une commission sous-préfet chaque matin nous na fait ici, moom ci boppam dugg ci auto. yi ñu recruter chauffeurs ou ay auto, man ma ci teg sama bët ñuy le tour des quartiers di informer y sensibiliser yenn parti politique qui a fait une visite de proximité porte à porte pour sensibiliser mais malheureusement la société sénégalaise elle est ainsi faite dañoo bëgg la dernière minute. ñenn ñi ils sont info dëgg ma la nee la ñenn ñi xam nañ ne seen pièce dañ ko war a jëli mais ñoom dañ ne gëmuñ ne loolu dëgg la ñenn ñi dañoo jàpp ne euh, carte d'identité boobu ñu leen di wax ne moom la ñu war a jël buñ ko jëlee loolu cela veut dire le jour de vote duñ vote duñ voté moo tax ñoom it jëluñ ko ñii dañ leen ne seen pièce a ngi nii dangeen ñuy jox bële ñu jox leen bii ñu ne ñoom duñ joxe seen original parce que duplicata wóorul donc yooyu yëpp ay paramètres la moo tax man damay ne état moom lépp lu mu waroon def comme information def na ko. population bi nag sénégalaise ñun xam nañ leen dañoo bugg la dernière minute ñu bëri dañ yaakaaroon bu ñëwee tey euh, buñ leen waxee du ñu voté il faut ñu indi carte bi que bu ñu demee fële dinañ fa trouver une commission boo xam ne dina leen jox seen carte mais malheureusement loolu nag moo amul.